wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi ñëw ci yow wax la it ñu ñaan ci li nga xam ne lii peut-être fan yii dugg na ci réew mi ñu ñaan xam ne ne yaa ngi ñaan sax ñu dolli ci ñaan ndax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 mu yëkkati ñaar million euh, teg ko ci sama loxo wax ne naa ci jokkoo président de la république Macky Sall mi nga xam ne moo yilif réew mi teg ko ci loxoom ngir jàppalee ko réew mi ci xew-xew bi ci senegal yépp jëf joo xam ne itam xam ngeen ne moom li muy def ci du baax bëggul kenn di ko xam waaye lii nag day jëf joo xam ne daa bëgg nit ñi roy ko mm-hmm. ngi diggee ñépp lépp lu ci waaye mën def ndax diis na ci loosu ginnaaw bu état bu Sénégal yëgalee Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jàngoro ji dugg na ci réew mi ci la Serigne bi ñaan waaye daal di jëf yëkkati 200 millions de francs CFA def ko ci Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr soññee ci waa Touba ca kanam jóg fas yéene cee jëf roy Serigne bi ci jëf joojule tax ñu dem waxtaan ak kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci diwaan bi di autorité administrative yi moo xam gouverneur préfé sous-préfet ba ci sëriñu daara yi ñu waxtaan ak ñoom ci yan yoon lañ war a mën a jaar ba jàppale diwaan bi ci xeex jàngoro bi nga xam ne moo di coronavirus waxtaan woowu nag ñu yaatal ko lool ak waa service di d'hygiène ci jotaay bu yaatu xool yan stratégie lañ mën a jaar ba setal dëkk bu sell bi di Touba désinfecté ko waaye bépp bërëb boo xam ne war nañ ko setal ci dëkk bi ñu mën ciy taxaw loolee chef de service régional bu service di d'hygiène di Fallou Sarr rafet lu jotaay bii waa Touba ci kanam amal ak moom waaye ñëwaat ci stratégie yi nga xam ne fa lañ fas yéenee jaar. man Falilou Sarr euh, jiite région Diourbel ci wàllu service d'hygiène tey jii noo ngi fii ci dalub euh, tubaa ci kanam fii ci Touba euh, li ko sabab nag mooy ànd bu ñu ànd ak ñoom lëngoo bu ñu ànd lëngoo ak ñoom ngir liggéeyal askan wi. ma ànd ak capitaine Alassane Salam Keita mi nga xam ni moo yor. Euh, brigade spéciale hygiène Touba ñu ñëw toogoon ak ñoom euh, di mébat di xalaat ci euh, naka la ñuy gën a baaxale dëgërale suñu taxawaay ci li nga xam ne si mooy jàngoro ji fi yàlla wàccee xeex ku nekk nga koy xeex war na ku nekk waaye bi ñu nu wooyee ni ñu ñëw leen nu boole suñuy suñuy suñuy doole dañu cee sawar lool waxtaan feek ñoom diiru ñaari waxtu Euh, nu tëral liggéey bi ñoom ñu euh, jàppandal lool ci mbirum euh, li nu yittewoo ci produit yi ak ak i wata ak yëpp ba nga xam ne si programme nanu ba incha allahu rabbi dëkk bi lépp loo xam ne si lu ñu war a def opération grande envergure la maanaam yaatal jaar ci mbedd yu mag yi jaar ci dem ci barab yi ñëpp bokk muy jumaa ji ak yenn jàkka yu mag yi dem ci morgue yi dem ci marché yi surtout marché occas bu mag bi nga xam ni xam ngeen la fa ne waxtaan nañoo ñoom ñoom waa kanam ak nun ba nga xam ni daa ñu taxaw ñoom euh, nettoyé ko ba mu set ñu pomp marché boobu ak yeneen marché ak gaaru keer bi tamit fu nit ñi tase di dem dëkk yi nga xam ne wër nañu Touba ba ñetti kilomètre ba juróomi kilomètre yépp ci biir la bokk ndax euh, euh, benn benn càlla bi wàllante bu duggee fii du bàyyi feneen fa ginnaaw waxtaan yooyu le ci la Touba ca kanam jóg yëkkati lu toll ci 45 millions de francs CFA ngir xeexee ko jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus loole mu jagleel ci waa service d'hygiène pàcc bu am solo fàggul leen ay pompe ay produits yuy désinfecté ay masques ay tenues yoo xam ne dañ koy sol gasoil essence lépp loo xam ne da leen di yombal seenub liggéey waa Touba ca kanam jébbal leen ko ngir ñu gën a mën a xeex ak jàngoro bi nga xam ne moo di coronavirus waaye aar ci dëkk bu sell bii di Touba. jumtukaay yooyu nag biñ ko jébalee waa service d'hygiène ñoom rafetlu nañ ko ne pare nañ ngir liggéey ànd kook Touba ca kanam ndax lépp loo xam ne woon nañ ko ci seenub liggéey fii ci Touba Touba ca kanam jébal na leen ko. niñ ko waxee woon démb. barki démb fële ca seen siège euh, yoo xam ne dañ ko jënd indi ko pour service d'hygiène euh, liggéey ci ci dëkk bi ñuy wax rek jaajëfati nan ko doon waxee du doy mukk jaajëfati fi mu ne ni daal bon dara nekkatul gàllankoor ci liggéey bi euh, donte tàmbali woon nan ko bon war naa mel ne làbbuli gi karwaas gi doon làbbuli liggéey bi ñëw na jërëjëf jaar jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Touba ca kanam jóg ànd ak service di d'hygiène ñu tàmbalee opération désinfecté bépp bërëb boo xam ne dañ fay dajee ci dëkk bi loole ñu tàmbalee ko ci jumaay Tuubaa ji ak li ko wër ak kër Serigne Mountakha Mbacké Bassirou gi nekkee ci Daarul Tanzil désinfection boobu noonee lañ koy amalee ci bépp bërëb boo xam ne dañu fiy dajee ci bërëb bi nga xam ne moo di Touba muy marché yi jumaa yi jàkka yi morgue yi armeel yi ba ci 5 ci dëkk yi nga xam ne ñooy wër Touba liggéey bi nag noonee lañ ko fas yéenee wéyalee ba jële fi jàngoro jii di coronavirus rawatina ci dëkk bii di Touba yaa man ala an zawjatin wa an walaat hudni wa ud jamia alisal balaat wajalilaayi maskani tubabat misrasmia bi jaayi xayri man abaat wajalilaayi maskani tubabat misrasmia bi jaayi xayri man abaat wasaliyaan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa man qaddamani aw saara fanajjini wa xillahu aw saara wa man aabani aw maara illaahi afarsu xudan aw maara wa man sattamani aw laama nañuy faral di watandiku di joxe loxo lu bari te boo dendeek nit muy sëqat sëqat su la jaaxal fexeel nga dànd ko lu war a tolloog benn meetar du caagéen ne da koy daw waaye loolu sàmm sa bopp la dañu leen a bëgg xamal coronavirus bu la jàppee nu mu lay def ak lan nga yëg ci saw yaram ngir mën a jokkoo kër docteur xool ba xam coronavirus la wala déet boo yëgee ne saw yaram mu ngi tàng lool ngay saqat mboowu lool foo tollu di ànd ak coono ci ñenn ñi ay méttit yu mitti di jàpp seenu yaram seeni bakkan di mel ne luy xelli ñuy am buli guy xasan ak biir buy daw gaaw leen gaaw ngeen ko kër docteur boo nekkee ci mbooloo mbaa ci sa kër dend ak sa njaboot di li mbaa ngay saqat xamoo lu ko waral del faral di jëfandikoo musuwaar wala morso bu diis boo amul li mel nga jël sa conc nga teg ko ci sa kanam ndax lor yu ndaw yooyu di génn mën naa indi ay gàllankoor ba boo amee doomu jàngoro bi nga wàll ko keneen jigéen ñi ci kër gi tey togg nañu fexe lépp lu ñuy togg te mu bàyyi ko ci mala nu raxas ko raxasin wu set ànd ak ordu sawel te it buñ koy togg na nañu fexe mu ñor ndax coronavirus virus bi ci boppam ci mala la bàyyi ko muy yàpp mbaa jën mbaaw nen fexe leen mu ñor xomm ndax loraange mën naa ne fu ne boo amee lu la jaaxal ci sa yaram wooteel ci numéro bu dul fay dara di 800 00 50 50 wala SAMU national ci quinze 15